ak li ko yonent bi jaraloon nga gis Aliou xaswatu Uhud bu mu doon tudd benn bu nekk rek xaswa bu nekk rek taxawaayam du fi xaj ma tudd ci yi ci gën a siiw nga gis Aliou xaswatu Uhud waaye Badr yonent bi récompensé na ko ak Chérif xamuloo ne Badr moo tax Chérif jiitu bi ñu ñibbisee Badr la ko yonent may fàttali fekk Ali fitam Mayuko ko dem ñaani Fatima parce que Ali c'était l'homme le plus pauvre de son temps amuloon peñu li muy jàmbaar yëpp ku nekk ngi bëgg Fatima mais kenn ñi mu ko ñaan si yonent bi lu tax parce que yonent bi mayul woon Fatima jàmm Fumu mu fekk Fatima di nelaw mu ne yee leen ko mu jóg julli fu fekk Aïcha di nelaw mu ne bàyyi ko mu nelaw parce que xam na ni kii yuuram dafa soxla noppalu ndax xam-xam dimbali leen ngeen tey lekk yi ba ci kanam yéen a ngi yàq waxtaan wi xanaa séeréer yi la soxna umu waaw mi ngi nii ak soxna saawa ñëw nañ sëñ Cheikh mi ngi may fàttali léegi sëriñ jim nga xam ne sëriñ Moustapha fi la daan dal ci moom ñu ngi koy nuyoo passage jim Touré eh, Badr lañ fa jógee Aliya dégg na Fatima ku nekkoon koy labat si mais labat gi yegg si wul ci yonent baa ngi tànk xam lu rek ku nekk ngi tudd Fatima mu noppi rek ku ñëw wax ko ko sax mu noppi rek ma ne Fatima différence am ak Aïcha dafa war a faatu léegi waroon gudd fan moo tax dafa war a jaamu yàlla léegi Aïcha dafa war a gudd fan te moom mooy jàng pour jàngal li ñeneen ñi moo tax yonentu daan ko bàyyi mu Aïcha dundaat na ñeent fukki at ak nangam gannaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais Fatima benn weer la après yonent bi in elle n'avait que vingt huit ans bi muy faatu te moo gën ci jigéen ñi moo ci gënoon a rafet moo ci gënoon a niru yonent bi alayhi muy muuñee yonent bi comme Fatima mu ne mosuma gis ku dëgg li ñuy wax sitku lahj ku ci dab Fatima xanaa papam عائشة مني وحني نون علي نما وحمل بفاتي بني خم خم مني تسمع مني علي تخم خم عائشة مني تومال نما مو علي دنيا قبل خم قال أمن قبل بني وقت حادثة الإفك نتخوى علي دفن نخدم عائشة ما تحني أم قبل تدوب تدوب بس كنا نقول الإسلام ينقل يتجزي علي دفن ينقل بيار لخطر لولا parce que ñaar bu ñu taxawee intérêt yonent ak intérêt Aïcha la chaque année intérêt yonent lay tànn parce que yonent dafa fiir ba du lekk fiir te mënul supporter loolu Aliou ah, bañ loolu mu ne ko yàlla xatalul na bu la neexee wut keneen laaj ko jàng xam xam nga kooku gindi na yonent bi pour mu mën a am solution mu laaj ko jàng bi mu ne ko Aïcha moo xale bu jigéen buy nàmp yem moo xale bu jigéen buy nàmp yem fu mu dem mën na fa nelaw. waaye su ma ko xamaloon lu kon wax na ko Aïcha gën ci sa jigéen yonent bi bi yëf yi leeree alxuraan wàcc ci la xam ne solo yu wax affaire bi pexe Abdullah ibn Ubay ibn Salul waaye Aliou gannaaw bat fekk am na benn mbindaan wala mawlaat arab ab mawlaat mooy jaam bu jigéen boo goreel mu nekk sa kër bu koy topp naan ko xam nga Fatima ñu ngi koy bëgg mu ne waaw kay mu ne ko nga labat ko mu ne ko fatima kay est ce que bu ma ko labatee mu ne mu topp ma ci rek ba benn bés ma ne ko est ce que yonent bi ma ko may dina ma ko may mu ne ma soo koy labat yonent bi la may nee ma dem seeti yonent rek bi ma ñëwee yonent bi ngir waqaaraka hiba xamatuma lan laa koy wax bi ma toogee rek mu ne ma xanaa fatima nga bëgg ma may la ne ma muñ ne ko waaw kay mu ne ko loo am mu ne ko yoruma dara bu jigéen fo nga cat ko yow tamit dama wuti loo koy loo am ñeneen mu ne ko fas mu ne ko fas wi ko xare bee ko moom moomoo ko jaase ji mu ne xare yàlla bee ko moom moomoo ko mu ne ko nag bubu koŋ mi mu ne ko waaw kay boobu mën na dem mooy ni ngeen tuddee xanaa bu doon tey gilet boobu nag jaase la doon bul ndax nit mën na xeex te du am gilet pare mu ne ko demal jaay ko nii de ñu déedéet njëgu gëlëm la waaye ala kulli xaal ñeenti téeméeri dirham mbubb mu koŋ ma Ousmane na jënd Ousmane jënd ko pare ne ko xam nga ne mbubb mi lew na ma léegi mu ne ko waaw xaalis bi lew na la léegi mu ne ko waaw mu ne ko jox naa la ko pour xarak jàmbaar ju toll ni yow du ñàkk mbubb mu koŋam Ousmane mi ñuy tuumaal ne noonu waale xoolal loolu moo def loolu te Ousmane Ali tuddee na ko doom te bu ñu ko tuddee di ci xam dara Ali ibn Abi Talib tuddee na doomam Ousmane ibn Affan alxawqaa bi ñu ñëwee Madina Aliyu Xasan ak Ousseynou la wërale biir ak Ousmane parce que Ousmane nanguwul koo xeex pour ñu défendre Ousmane ibn Affan la Ousmane moo leen mu def ak ñoom munaadara ak ni mu guddee ñu ci gàttal ñu may ko Fatima ci ñaareelu ak ci gàddaay gi après Badr Fatima xam nga Aliyu wax naa ne papa monogame la woon mais moom polygame la woon Aliyu bu bari soxna la woon waaye nag li Fatima di dund yëpp takkul keneen bés ñëw na rek waa kër Abu Jahl bëgg ko may seen doom yonent bi ne du ci dal Fatima ak yonent bi yonent ne yàlla du boole yoonu yonent doomi yonent ak doomi naw na yàlla ci benn kër Aliyu nag mooy tànn daal di takk jëkkëru Zeynab muy Abul Aas moo jur umaamu umaamu après nekk na jabaru ali nekk na jabaru ali am nañ sax doom mooy al Awsat waaye fekk na booba Fatima gaañu Fatima ko jural Xasan moo ko jural Xuseyn moo ko jural Muhasan moo ko jural Zeynab moo ko jural Umu Kulsum ñooñu la ko jural ñi ci des Mouhamadul Xanafiya al Xanafiya xam nga ñenn ci chia nee nañ al al Xanafiya mooy al imaamul mahdi ñenn ci chia wax nañ loolu mooy chia al muxtaariya bokkul ak chia al zaydiya bokkul ak al imaamiya dégg Muhammad ibnu Ali Hanafiya doomam la ci mu gënoon fonk la Ali yu ci gàttal am na fukki doom ak ñeent yu góor ak fukk ak juróom-ñeent yu jigéen am na koo xam ne daf ko jur rek perte ni ngeen wax ku juddu faatu xale bu tuuti faatu li ngeen koy ku yàqu donc bu matul bu prématuré mbémbul mu nga fata wala piir ki ko jur mooy mu xayaat doom moo ko jur jabaru ali la woon dégg nga ñooñu la am ci doom moom ali ibn abi talib waaye juróom yi nga xam ne ñoo ñoo meññ njabootu ali tey juróom ñooñu mooy xasan mooy Xuseyn mooy Muhammad bi ibnu Xanafiya ak Abbas ibnu Taglibiya ak Omar ibnu Kalabiya Omar Abbas doomam la ak Muhammad ibnu Xanafiya ak Xasan ak Xuseyn mais xam nga Xuseyn Xuseyn ashia rafida waroon nañu xool passage bu ndaw foofu mooy Xuseyn Amar ibnu Xataab moo tax Xuseyn am sët am doom bu dul woon Amar ibnu Xataab Xuseyn tey duñ ko xamal njaboot. ndax ki nga xam ne mooy zeynul abidin ali ibnul xuseyn ki ko jur omar ibnul xataab moo ko jox xuseyn doome yas dërëy jadar la maliku faris moom la jël ñaari sœur lañ mu jël kenn ki jox xuseyn jël kenn ki jox muhammad ibnu abubakar muhammad ibnu abubakar jur ci xaasim xuseyn jur ci ali ibnu zeynul abidin juróom-ñeent yi ñuy wax imam lañu yëpp parce que chia dañu wax ne fukk ak ñaar ñoo am ci imam yenn la ci chia yëpp yonent bi ali nga jëm hasan hussein mooy ñuy wax ne benn xadis la bu ñuy wax xadis bi wóorul na du xadis sax dañ ko sos te yonent bi dafa wax ne ana wa ali wal hasan wal hussein wa tisatun min abnaa al hussein mahsumun du dëgg la ismata illa linnabi sallallahu alayhi wa sallam waaye hussein budul woon nag omar hussein du am doom konoon ñoom seen imam yi ñuy wax duñu judd te bés bu seen ñu saaga omar téeméeri junne yoon def ko jaamu yàlla parce que ñoom nee nañu omar ak abou bakr ñoo gën yes iblis xoolal loolu am na ñuy wax loolu xamuloo yonentu sallallahu alayhi wa ali ibn abi talib autour su mosaan dégg ku saaga abou bakr wala omar daf lay rey mu julli benn bés génn ci ñuy wax mu ne la ñu ne ko ñi ci buntu ji nga mu ne man ñu wax de parce que sa